waxee lañ xam euh, asalaamaaleykum man la Amy Ndiaye ñi bi sax loolu moo war a jiitu Amy Ndiaye ñi bi élu du département de Kaffrine ñëw fii ñu doon càmbar budget ministre des pêches et du transport maritime ci kaw loolu ma ne ko monsieur le ministre Mali ñëpp xam nañ ne mooy première client wu Sénégal ci côté commerce ci port de Dakar boo gisee ma wax ko loolu dama ne ko trafic Mali 65 pour cent yi dafay jaar ci port de Dakar ma ne ko il y il y ans 75 pour cent yi euh, dafa doon jaar ci train ci train bi di dem Bamako ma ne ko tey fi ñu toll 100 pour cent wu euh, trafic boobu mi ngi jaar ci yoonu Sénégal yi ma ne ko te loolu mi ngi jur euh, yàq yoon boo xam ne dele bi ñu ko àppal pour mu yàqu jotagul donc bi ñu defee estimation bi dañoo gis que ne l'État du Sénégal da ciy participer chaque année plus de 50 milliards. ma ne ko loolu pour ñu sakkanal ko ba 50 milliards yooyu am fu mën a dem ba pare trafic bi dox nga xam ne euh, loolu dafa am solo ba pare dana tax ba concurrence bi nga xam ne moom la ñu code Abidjan portu Abidjan war a concurrencer portu Dakar dafay tax ñun ñu gañe ko d'accord kon yow da doon da doon bëgg rek euh, ministre bi def jël ay matuwaay pour que port. Euh, compétitivité bi nga xam ne moom moo nekk entre Abidjan port de Abidjan ak pooru Dakar ñun ñu mën ko gagné parce que Maliens yi bëgg nañ Sénégal Sénégal am na dal war nañ fee mën a jaar mais nag pour que trafic bi dox bu baax a baax a baax il faut que train bi ñu delloosi ko moo tax ma ne ko monsieur le ministre lan la sa département taxaw pour war ko def.

ba nga xamné dana tax nit ñi mëna am fofu liggéey bo xamné dañ ko mëna liggéey ba satisfaire seen ay besoins yi. Kaffrine dina ci gis njëriñ Gossas dina ci gis euh njëriñ ko euh, Tamba dina ci gis njëriñ yoon yi mu jaar yëpp ba Kidira ba Mali dina ba ko dina ci gis njëriñ benen bi ci dess aussi ma dugg ci né ma ma gërëm fa aussi le directeur général du port abou bakkar Sadikh Bèye parce que réew liguey moko ko yor te port bi dafa doon lo xamné ni mo gëna bok ci li nga xamné moy relancer suñu économie réew moo koy relancer donc fofu da fa wara war nit ko xamné da fay liguey liguey bu set bu sel bu am transparence da fay liguey di waxtan aussi avec tous les acteurs motax tax ma rafetlu séminaire bi mu defoon 3 jours yi mu defoon port ak tous les acteurs portiers li may wax ci xam-xam laa ko teg ma wax aussi le ministre des ne ko na jàppale waa région Kaffrine département Kaffrine ba nga xam ne aquaculture bi dina fa dox parce que ñun amuñu géej dañuy jëgaani jën dañuy indil jën léegi mën nañu am poisson frais ci suñu biir dëkk ci bu ñu amee euh, aquaculture ci suñu biir gox loolu laa amoon ci lu may wax asalaamaaleykum wa rahmatulah te li may wax dama ko teg ci xam-xam parce que man maa yor commission sociale bu chambre de commerce bu Kaffrine asalaamaaleykum wa